messieurs, messieurs et madame, chers donateurs de la Fondation Sonatel. Au nom de tous mes camarades de l'INEFJA, nous vous remercions car vous nous avez fait une belle surprise. avec, ses dons de table, banc, chaises et matériel didactique. Ces dernières inexistant au Sénégal et en Afrique, je veux dire machines perquises, tablettes, poinçons, essentiel pour notre éducation. Vous avez compris que nous aussi, nous avons droit à l'éducation. Nous vous promettons de bien travailler à chaque fois que à chaque fois que nous nous assoirons sur ces belles chaises et Nous n'oublierons pas de prier pour vous que le bon Dieu, que sur vous sa grâce la réussite de tous vos di beral nag nuyoo kilifa diine yi fi teew parce que tey wax dëgg yàlla cérémonie bi jëmmal nañ ko jëmal boo xam ne ñu ngi leen sant bu baax a baax sëñ Moussa Fall di xalifa Baye Fall yi yebal na fi sëriñ Mbacke Fall mu ngi fii sunu ginnaaw ànd ak Amady Khady Fall euh, Amady famille njegéen sëñ Mouniru di xalifa Cheikh Ahmadou Baro njegéen yónnee na fi moom tam délégation sëriñ Ibrahima njegéen mu ngi fii ànd ak sëñ Mam Góor Lum évêque de Thiès mooy wax dëgg yàlla resevoir nañu wax nañu aussi ngant bi nga xam ne bi tey moo ko téye ba mënul fekk si waaye nag yónnee nañu fi ku ko fi représenté muy Raymond fay famille dara yónnee na fi aussi nax ma dara pour mu représenter ko si loolu yëpp dafay dalal sunu xel ndax dafa ñuy wan ne wéetuñu si li ñu ne ndax bu ñu dee soox mu metti diis ñu gestu gis suñu wet ñu mel ni kilifa diine yooyu gis sunu wet ñu mel ni suñuy partenaire partenaires yoo xam ne du ñu tàyyi si dara parce que gannaaw fondation Sonatel boo làqoo fii si gannaaw rek gis dortoir des filles Lions Club moo ko fa def te tey ñu ngi fii teew à travers le président du Lions Club de Thiès euh, Khadra fal ñu ngi koy nuyu di ko tatagal di beral aussi nuyoo sunu partenaires yi comme PAMECAS ñu ngi fii seen directeur Thierno Ndiaye présenté wu na CERFA UNITRA unité du troisième âge FENAPES qui fédération des parents d'élèves euh, ASI di action de solidarité islamique ñoom tam ñoo ñu jàppale bu baax si taxawal néegu yàlla bii tey xale yi mun di fi jàng alxuraan di fi jaamu yàlla ASC yi nga xam ne ñoo nekk si euh, di Poñeen ak euh, Kër Seyib waa conseil communal de la jeunesse waa une UNSAS euh, UNAS plutôt union nationale des aveugles du Sénégal ñu ngi fi seen président monsieur Aliou Souare teewal leen waa cause ñu ngi fi référent Ibrahima caw salu Seck pardon Saliou Seck ñëw na teewal leen Fédération nationale des personnes handicapées di Sénégal aussi euh, yónnee nañ fi ndaw di nuyu aussi di beral nuyoo sunu xarit suñu nattango di euh, monsieur Diakhaté moom mi nga xam ne mooy directeur u CRFPE di Thiès donc ñooñ ñëpp teew bi ñu fi teew dafay wane rek ne INEFJA li mu nekk bu mu si yox yoxi bu mu si delloo gannaaw te xam ne wéetu si ndax am nañu ko bokk moom am nañu ko si jàppale Vraiment, c'est sur ces mots-là que je voudrais m'arrêter et vraiment vous remercier sincèrement de votre présence. Je ak bànneex di nga wut ay kàddu pour wax ko def ne ma di ko waxaat ci wolof euh, ma ne ko ah dina xaw a jafe tuuti de waaye dinaa ko jéem euh, di nuyu d'abord. Euh, autorité religieuses yi nga xam ne dañoo yebal fii seeni ndaw mu nekk suñuy njiit au plan spirituel di leen ziyaar di leen nuyu nuyu bu gën a kawe di nuyu ñi fi ñëw teew fii yépp duma ci jaaraat parce que monsieur Faye mu ngi ma doon xool sànq di ma bëgg a xeelu ndax ma bañ a guddal duma guddal waaye ñi fi teew ñëpp ku nekk ci sa tur ak sa sant maa ngi lay nuyu di wax sama mbégte ci li ma fi teew tey xam ngeen ne ci ouverture des classes lañ nekk am nañ ay activités yu baree baree bare yu ñuy def ñun ñu ngi nekk ci ordre service yi parce que école yi il faut ñu jàng ci loolu lañ nekkoon di liggéey waaye dama ne leen lu ma mënti def tamit su lii commencé damay ñëw bàyyi lépp lu may def ñëw ndax lii importance bu kawe laa ko jox importance boo xam ne ne sama teew rek moo koy mën a wane mais am na leneen tamit lu tax ma gën a teew mooy directeur de cabinet bu ministre de l'éducation nationale moo ma woo ci guddi ne ma man maa waroon ñëw ma ne ko ah man de boo ñëwee dinaa ñëw boo ñëwul dinaa ñëw mu ne ma kon boo ñëwee boo demee nga jëlal ñu kàddu ne ministre dafa voyager peut-être dina ñibbisi tey walla mu ñëw ci guddi gi man xaw ma waaye dafa voyager loolu xam naa ko léegi man maa waroon ñëw waaye am na yu ma dab mënumaa ñëw pour wane rek importance bu ministère de l'éducation nationale di accordé ci li ngeen di def madame l'administratrice général donc euh, li ñu fi wax yépp mooy waxu lan waxu xool rek mooy wax jërëjëf ndax fondation Sonatel man yàgg naa daje ak ñoom ci ay yeneen occasion mais occasion yooyu ay dons yu ñuy jox la ci de diverses natures nag du ma fi nekk di ko lim bourse xale yi ay lu lu nekk man de daje nañ yoon yu baree bare te yoon yooyu yëpp ti dimbale affaire éducation nationale te dégg naa tamit ci wax affaire santé ci yeneen secteur de de de notre pays ñu ngi ci yëngatu maa ngi koy gis ci télé bi maa ngi koy dégg ci rajo yi waaye man li ma ci gën a soxal naka leen koy waxee li ma ci gën a amal solo mooy li ñuy def ci éducation te loolu ñun mënuñu ko compter di leen bàyyee ak yàlla moom mi nga xam ne moom moo yor payoor mu fay leen ko defal leen jàmm defal leen sutura may leen ñoom ñu wér ak wér la ndax ñu mën a continuer lu rafet li ñuy def jàppale xale yi xale yi INEFJA yi nag ñu jàppale tey particulièrement dafa nekk li ñuy wax une euh, cible vulnérable dinañ jàppale yeneen xale yi waaye ñii man daf may gën a amal solo parce que ay xale yoo xam ne dañoo laaj ku leen dimbal te matériel bii ku ko gis xam ne amuñ ko woon jëndeewuñ ko fii Sénégal loolu lu am solo la loolu du valeur u xaalis bi mais valeur bi muy indi ci xale yi ni ñuy mën a améliorer seen njàng di réussir xale yi fi mu ne dañuy am bac dem jàngi France ñibbi si démb am na ku ñëw sama bureau mu ngi nekk à la direction de l' enseignement élémentaire fii la nekkoon dem jàngi France am ay diplômes yu bare bare macha allah dafa ma doon wax toutes les euh, formation qu'il a eu damaa jël a jël a jël ba après ma bàyyi jëlatuma waaye ma ne xam naa ne du ci wax dara parce que jëlatuma ndax day ñëwaat après ñu nekk di ko euh, liggéey. dans le cadre de l'éducation inclusive am na fii benn collège bu ñu defar boo xam ne entièrement inclusif la collège boobu dina ñëw ñu gën ci liggéey pour wax na ne xale yi tey ku leen jàppale pour ñu mën a jàng pour mën a réussir ñun lañ ko defal moo tax ñu ngi leen di sant di leen gërëm loolu laa amoon wasalaam